maa ngi leen <laughs> di si nekk ma ngi jox sa wàccuwaay résultat yi dé définitif yi génn na léegi génn na ñu ñu léegi ñu indi ñu ba cinquante cinquante ñaata sax cinquante cinquante quatre pour cent léegi Amadou Ba am trente cinq non yéen <laughs> Amadou Ba mënoo am trente cinq trente pour cent sax amu ko ñu comprendre leen affaire bi dañ ko wàññi mbir mi dañ ko wàññi gàcce gi leen a bañ moo tax. mais nag garaaw waaye man li ma si gën a yéeme surprise bi si am du surprise sax maanaam Sénégal ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo maanaam ñoo tëj page système waaw ku si mel ni man xalifa xalifa xalifa xalifa soixante neuf mille voix sept cent soixante nekk un un un virgule cinquante six pour cent idi moom <laughs> ey eh, yàllay karim idi fu mu nekk nii def ngeen retraite yow ak Xalifa retraite par force léegi jeunesse bi yow nañu Xalifa yow moom mën na maa wax ne Bart Bart laa lépp laa ñàkk rek Bart moo la ko ñaan Bart la ba doon ba desoon ci yow kase yaa ma gën a xam wax ji yegg nag dafa ko moom waaw ñeneen ñi moom tax ma la wax ay Pape Djibril Fall ñeneen ñi nga xamante ne dañoo yaakaar ne ay tanaaf lañ ci politique pour ñoom benn waaw ba asamaan si doon daanu benn jaxoñe mu taxaw fii yàlla moo may Ousmane Sonko loolu ginnaaw yàlla suñu borom Ousmane Sonko mooy fal mooy fal ñi député ñi mu fal leen maire tey ñu xëy mu falal ñu président ey waay yàlla maa ngi doon seetaan benn vidéo Bart bu wax naan eh, <laughs> amul benn sondage buy jiital boo xamante ne élection présidentielle mën nañ ko gagné si premier tour yaa ngi daw mu ngi noonu daal xam naa ne moom li leen dese fi seen mandat jeex si naqar xol li ngeen koy toogee waaw changement dina bëri moom assemblée moom septembre septembre assemblée septembre dañ kaa dañ kaa liiwaat moom dinaa ko am place moom dinaa nekk si député yi incha allah soobee yàlla ma représenté lébu lébu ngor wakaam yof lébu yëpp si canton yàlla